doyen des juges génn àddina tey ci alxamis gi juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2021 gannaaw ab feebar bu ko tëraloon xibaarub desem nag nekk lu bette lool moom doyen des juges nag ràññeeku woon loolu ci dossier bi ñu duppee Sweet Beauty gannaaw ki nga xam ne mooy juge du huitième cabinet dal di ci génne loxoom ñu mujj ko tenk moom doyen des juges juge huitième cabinet bi nag di Mamadou Seck la mu xamle woon tax mu génne loxoom ci dossier boobee mooy ne convenance waaye moom sax daal dina gën a sori ba xamle rekk ni dafa ragaloon ngir yenn menaces yoo xam ne jippoon na jëm ci kawam ak ëpp njabootam waaye itam référence bi nga xam ne defoon na ko jëm ci ab soxnaam nga xam ne mu ngi bokk euh, ci xeetu joola nekkoon na kàddu yoo xam ne indi woon na coow loolu ndax ñu bëri jàppoon nañu ni xeetu kàddu yooyu kenn waru ko mën a yëkkati koo xam ne nag rawatina bokk na si justice te atte mu doon loo xam ne nag indi woon na coow loolu ba sax moom Mamadou Seck na évoqué ay grave accusation yoo xam ne moom sax jàpp na ni teguwul ci dëgg jamono boobu mu doon wax nag mu ngi doon jëm ci yenn kàddu yoo xam ne njiital Pastef di Ousmane ko yëkki woon na ko jëmale ko ci ndoddam di xam ne rek ne moom juge du huitième cabinet bi juge bu faible la te itam amul benn indépendance loolee tax nag ba moom ki nga xam ne mooy juge Seck daal di bind ay supérieur am daal di leen xamal ni mënatul wëyal loolee nga suite boti bi sax ñaan ngir ñu amalal ko ay garde rapproché ngir dal di sàmm karangeem doyen des juges mi nga xam ne nag génn na àddina tey ci alxamis gi ràññe woon nañu koy également ci li nga xam ni mooy dossier bi ñeel Assane Diouf Clédor Sène ak Guy Marius Sagna yi nga xam ne ñu leen tuumaloon ni dañu dal di rek daf lu jëm ci wàllu insurrection maanaam woo askan wi ngir ñu fippu moom nag ba mu leen inculpé daal maanaam tuumal leen ni dañoo taqee laale ci loolee mujj leen déglu ndax ndax wér-gu-yaram boobee nga xam ni dafa jotoon tàggatémbe xibaar bi nag bi mu jibee tey ñu bari daal di def rapprochement ak dossier boobee waaye appam moo jot ba tax moom moomee mu dem ñu koy ñaanal yàlla mu yërëm ko te jégal ko